instant yi man maa soxla pour xam je suis prêt pare naa pour dékku yëpp yow ay tey ci kër war na jug ba sa jabar ci sama jabar dama xew daf maa jàmmi daf maa jaan ni man ak astu ba pare xolal këpp papaam ndox tonton maa ko. amul ndaw mën na leen problème bi yow mënuloo à chaque fois ngay daw sa responsabilité. kii nga dafa am googu xool yi nga xam ne dañu mës a ko seeti. wallaahi benn maa ko xam naa ko bu baax lu nit xaj la mbaam la baadoola la. man incha allah mën naa bëggoon a takk. comme ça nga nekk sama ñaareel bu ko defee toj toj yi ma defoon yëpp yëpp ci. mais tu es effronté yow Maodo est-ce que xam nga lan moo tax bu bëleeg man aw ma ci kër. mun na ne lan laa bëgg nga ba sa jaabante ji ni koy mat dama bëgg nga dégg li ma la taxam noonu la demee njaago wax ju ñaaw lu ma da koo fàtte. xam nga moo bëgg ñëw toog te nettali ma benn par benn lépp lu njaago doon wax. lu ma njaagu jëwee rek nan ma ko nettali toogal